mu ne diggante xam-xam am ngëm yàlla dara nekku ci walla diggante xam-xam ak diine ci islaam mu ne xëccoo amu ci xam-xam du xëccoog ngëm yàlla ngëm yàlla du xëccoog xam-xam loolu dafa war a leer ci ñun ne xëccoo amu ci lu tax fal ilmu yuayidu l iman ndax kat dëgg-dëgg xam-xam dafay dimbali ngëm dëgg-dëgg nit balaa muy am ngëm dëgg-dëgg-dëgg nekk ci moom balaa muy am ngëm yàlla dëgg-dëgg-dëgg jullit bi xam-xam dafay nekk ci moom ndax xam-xam dafay yokk ngëm yàlla mu ne fal imaanu yu baarikul ilm waaye xam ngeen ne ngëm tamit dafay barkeel xam-xam allahu akbar mu ne noo tax ñaar yooyu xëccoo amu ci xam-xam dafay dimbali ngam waaye ngam dafay barkeel xam looloo tax mu ne fa inna al xaq laa yunaaqidu al xaq dëgg mënta dàq dëgg ndax dëgg benn la ndax dëgg ci yàlla tabaraka wa la bàyyeekoo alxaq min rabbik falaa takunanna min al mu ne wa kama aqulu abadan inna al ilma indana diin na looloo tax moom mu ne boroom xamxam bi dëgg-dëgg lañuy jàngale ca ñun mooy xam-xam dëgg mooy diine nit bu bëggee am diine dafay jàng nit bu bëggee am diine day am xam-xam nit bu bëggee am diine dafay nangu gëstu ndax kat diine mënoo ko am lu dul li ngay def ci jaamu yàlla nga xam fi nga koy teg loolu tax gis ngeen sunu téere bu ñuy njëkk a jàng ci sunu dund def ñuy wax ne wala yaxillu lahu an yafala filan xata yaalam hukma laay fii daganul ci ab jullit muy def dara lu dul lii muy def mu xam lan la ci lan la ci yàlla santaane lan moo ci ndigalal yàlla jullit dafa war a góor góorlu diine muy gëstu ndax diine mënoo ko dund te amoo xam-xam looloo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne jullit balaa muy def dara na xam na jàng ndax yàlla loolu la faalam la njëkk a wax annahu laa ilaha illallah balaa dara di xew ndax xam-xam lalu ba pare su fekkente ne jullit bi dafa bëgg a jaamu yàlla dafa bëgg góorgóorlu ci diineem waaye xamut dafay nekk làmbatukatu guddi dafay nekk làmbatukat waaw ndax day gis rek nit ñi di def muy def waaye du ko leer na lii muy def noonu la wala du noonu waaye bu fekkente ne góorlu na la muy su fekkente ne jullit bi la muy def loolu leer na ci moom loolu wóor nakat dafay nekk loo xamante ne lu tegu ci dëgg la loola tax mbokk jullit yi ñun ñëpp góor jigéen mag ak ndaw ñu war a góorgóorlu ci suñuy àlluwe góorgóorlu ci suñuy diine yokk suñu xam ñu bañ a wax rek ne man jàngoon naa Faatiha Falaq ak Naas loolu wóorut jullit lépp lu muy def daf cee war a am xam xamal ni ngay jullee xamal ni ngay jàppee xamal ni ngay wooree xamal ni ngay joxe azaka xamal ni ngay ajee sa diine yëpp xamal li la ci yàlla wax sa kemtalayal kàttan li nga mën loo mënul nga laaj ndax fas alu ahla zikri in kuntum laa taalamuun même bu fekkente ne xamoo war ngaa laaj boroom xam-xam yi balaa ngay jëf dara waaw laajal balaa ngay def moo gën rek ñu nekk ay làmbatukat di jóg di dem rek yaakaar ne noonu la fekk di noonu ba ëllëg ñu dajeek borom bi tabaraka wa taala fekk du noonu lan doon góorlu yëpp nekk xaba am mansuur nekk pënd ak poussière loolu tax maa ngi soññ sama bopp di soññ mbokk jullit kenn ku nekk ci ñun nga góorgóorlu ci sa àlluwe góorgóorlu ci sa diine nga góor góorgóorlu yokk xam-xam ndax xam-xam mooy dimbali ngëm ngëm mooy barkeel xam-xam yàlla nañ ko yàlla defal jazakumullahu xayran assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.